asalaamualeykum uh, wa rahmatullahi taala wa barakatuhu uh, mbokk yi dellu si waat nañu ci xawlul xaq wal lisaanu sidq mu jëm ci xew-xew yi nga xam ne dalewoon nañ ko ci maam Adama mu doon xew ci diggante ay xëccoo yi am ci diggante ay kuréel fuñ fi toll rekk wax nañu xew-xew ya xew ak gis-gis yi nga xam ne moo ca am ak kenn ku ci nekk la mu lay ak aw layam waaye am na geneen wàll boo xam ne ñoom li ñu gis mooy nañu noppi loolu jàll bu ko kenn nettali nañ ko bàyyi mu wéy am ñoo xam ne ñoom lii seen gis-gis mooy loolu mënees na koo wax mënees na koo jàng mënees na koo nettali ndax ci histoire la bokk kenn ku ci nekk wax nga sa gis-gis waaye xew-xew yooyu li tax njuumte am ci mooy bañ bëggee ne nañ ko bàyyi ba ko kenn yi dañ ko waroon a bañ a bind boo gisee ma bind ne maa xufisa farra wa ma kutiba xarra li ñu mokkal takk ko loolu mën naa rëcc waaye lu ñu xase bind ci ay téere loolu lay sax dootu rëcc te bañ dalee wax ak ba léegi lu ñu leen waxal béygal dañ naa loolu diwa ko bind ma ngi ca téere sàngam nun nag dañoo amul maqaamaam di wax suñu gis-gis amuñu maqaamaam itam di def critique ci téere yi nga xam ne bañ ko bind ak léegi yi mat na junni at yi na juróom ñetti téeméeri at ndax ñooña dañ ñëw gën a jege xew-xew ba am na ci ñu dajeeg ñu fekk woon xew-xew ba nettali yooya ñi di ko jokk jëlaate di ko jokk jëlaate bu mu si ci nun waaye ay téere moo ko indi ba ci nun mbir nag boo ko fekkewul ña ko fekkee bind ay téere nettali nam demee yow la ngay man rek mooy nga netti mbir ma na ko téere ya nettalee dama waxoon ca tàmbaleekaay ba ne bu ñu duggee ci néeg walla ci kër am luñ fa wax ak luñ fa def génn dem ca pénc ma am ñoo xam ne ku ŋàng rek ñu ub sëgg ba bul wax bul wax ah waaw lu tax duñu wax fekk yéen ngi tere nit ñi ñu wax nit ñi li ñuy gëm mooy kon am na ñaawteef yu ñu def te bëgguleen ku ko wax il faut ñu bàyyi nit ñi ñu wax na dem na mbir ma demee woon ndax passé na ba noppi ñun loolu nekkatu suñu problème ñoo ñu fexewoon nañu ba taxawal seen dawla islamiya mu am ay njiit moo xam njiit ya ñoo war a jiitu moo xam ne njiit ya waru ñoo jiitu waaye nun den ngi noon fiiw tey ku jóge ci Guinée Bissau ñëw Sénégal dëkku fi nekkul ab jullit tuub jiite ñu ñun ñëpp te teg ci sunna ak farata atte yoonu yàlla noonu dañoo wàcc yoonu nekk ci gajj bi ñii ñuy nettali seeni mbir ak li li doon bari bari xëccoo beeg juyoo bi génn ñu woon alxuraan ak hadiis dañoo amoon baatu kilifteef waaye laïcité actewu leen woon nettali gi leen rek lañ ci mën a jëlee njuumte yi ci gis moyu ko te xam ne suñu jiyoo gi ay njuumte moo ko indi waaye leneen lu dul loolu nag mënee ko ci saxal ndax damay xam ne taarix tabar yi moo ko nettali nit jóge fee ne loolu nga wax ànduma ci waaw soo ci àndul te tabar yi deena ca dimbi daaw nag te amoo maqaamam farta fartaare tabar yi nag dootu fi nekkati ibnu isham nettali na ko neexu la waaw bu la te ibnu isham ëpp la juróom ñetti téeméeri at nag foo dem ci àddina bi fekk fa téere ba ñu mul ko di ko jaay loo ci man feek téere yooyu ñu ngi koy bind nit ñi di ko jàng leen rek mën a am jàng ko noppi mbaa jàng ko wax te dama wax ne ndegam nun ñi nettali téere yi ñuñ lañ tàmb ñu lañ bëgg a tàmbal safara kon ña bindul téere yi ñoom ña nga jaxannama bu fekkente ni am ngeen dalil ci ne nettali ay jaar jaar yu ñu bind ñépp ànd ci boroomi xam-xam bind ko day tàbbal ni safara waaye loolu dañu gisewuñ ko noonu faxsisil xasasa day yàllaa ko wax ci alquran yàllaa ne kunu xiradatan xaashiina te loola baaxul fa quti adaabaru qawmi alladina baaxul te yàlla nettali na ko noo ngi yemoon fa nga xamee ne ansaar nee nañu awa baadal ansaar laa nubaayiu illa aliyan ginnaaw ñun waa lansaar dañ doon xëccoo bëgg a fal suñu bopp falatuñ ko kon duñu fal kenn ku dul aliyu loolu riwaayatu tabari yi wax na ko xaaj ñett paas ñaari téeméer ak juróom-ñett ba léegi riwaayatu tabar yi wax na ko ci tab o europa paas maanaam xaaj benn paas junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñu jële ko ci ibrahim ibnul asir nettali na ko moom itam ca taarixam ba xaaj ñaar paas téeméer ak ñaar fukk ñett nee na lansaar yi bi ñu demee ba Omar jaayante ak dañ ne ndegam loolu la nag nun duñ jaayante kenn ku dut Aliyu foofu aw la ya ngi fi lansaar ak muhajirin ñoo ko doon xëccoo muhajirin jël na ko ci lansaar lansaar ne ndegam ñàkk nañ ko nag Aliou la ñuy fal kon Aliou mooy kañ waroon a fal lu jiitu wax ja ci ku dégg wax tey ñoo ngi dale ci fa qaala yani qaala omaru fa kasura laqatu wartafaati aswaatu atta taqawaftu lixtilaafa fa xultu absid yadaka li ubayiaka fa lama zaaba li bayaahu سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه Omar kenn la àndaloon ak Aboubacar ba coow la tàkkar naasee nag ba gaa naan buñ naree ñàkk nag suñu xilaafa Aliou ko moom moom la ñuy jaayanteel ba ñu tuddee turu Aliou rek la Omar daal di daw ak ki nga xam ne moom la àndaloon daane Aboubacar talal sa loxo ñu jaayanteeg yow talal sa loxo ñu jaayanteeg yow ndaxam sax histoire dafa wax ne am na ci histoire yi ñu wax ne Omar moo njëkk a jaayante ak Aboubacar waaye déedéet Bachir Saadin moo gën a jegeente a jege Aboubacar ba ko ne talal sa loxo ñu jaayanteeg yow Bachir ibnu Saadin moo njëkk a teg loxoom ci loxol Aboubacar jaayante ak moom Omar doore jaayante ak moom moo ki mu àndaloon ak mu ajir yi eh, man lan saar nag di jaayante ndax mu ajir ne ñett lañ fa woon waxoon naa leen nébaloo la amee sax ku ñu wax xubaab ibnul munfir nee na ko yaa bashir ibna shadin xaqaqta al aqaqi loolu tabar yi moo ko nettali lam ko tontu woon mooy laa wallahi walakinni karitu an unaasi ak qawman xaqan jaalahu laahu um mu ne ko dee wallahi damaa bañ a ay nit ñoo xam ne li may ñoom ñoo ko moom ba aw si gisee ne Bashir ibnu Saadin jaayante na ci kaw la Quraysin di tuddoo ne ñoo yeyoo buutu Muhammad ñoom aws ak la ñu gis waa xasraj taxawoon ci bëgg a jiital Saad ibnu Ubaada te Saad ibnu Ubaada ci xasraj la bokk am ca ñoom ñu wax ne te ña ko doon wax Usayd ibnu Xudayr ca la bokk te ci nuqabaa yu la bokkoon ñu daal di wax ne walla ila in wallayta waliyat a alxasraju alaykum maratan la salat lahum alaykum bi dalika alfadila ñoom waa aws ñu ne leen ñu wax seeni bokk ne leen xam ngeen ne ñoo waa xasraj ci xëccoo ngëneel lañ ma a nekk bu nu sàgganee ba xasru maanaam ba aws am xalifa ci yonent bi donte benn yoon lay doon dañ leen ko fi bàkkoo ba faw lànk leen Saad ibnu Ubaada te fal ba loola amee nag waa aws gépp daal di tëb daal di dem jaayante ak Abubakar waaye jaayante gi jaayante ak Abubakar ñoom ñi ngi ko jaayante ngir lan ngir xañ ko Saad ibnu Muaaz loolu moo tax ñu jaayante ak Abubakar loolu boo demee ci riwaaye bi nga xam ne sidna abubakar ci boobu moo ko nettali moom ci boppam wa fi riwaayati abi bakrin abi bakr sidna abubakar moo ko nettali tax saqifatu bani saaidata dafa wax ne lama raatil aws ana raisan min ruasail xasraji xad baaya a xaama usayd ibnu xudir wa raisul aws fa baya asadan li sadin wa munafasatan lahu an yaliyal amra ñoom jaayante ga doon jaayante di ko jaayante gi sidina abubakar sadiq dafa bokk ca la tax ñu def ko xëccu ak askanu xas aws wa ca des ndax ñoom dañoo bëggoon amaam xëccoo ngi askanu xasar xasraj ñoom aws ndax xasraj dañoo bëggoon a fal Saad ibnu Muaas te ci la bokk te ñoom bëgguñu waa xasraj jiite ci dara loolaa tax fa qaamu ilayhi fa baayaxuhu fan kasarat ala saadin ibnu ubadata wa ala xasraji ma kaanu ajmao lahu min amri im ba aw su jógee jaayanteeg Abubakar Siddiq la xasraj ñàkk lañ bëggoon ñàkk seen leader bañ bëggoon a jiital nit ñi nag daal di doge ci boor bu nekk di mabbu ca biir taqifatu bani saayida ci aws ak xasraj ne waa muhaajiri nekkuñu fa woon waxaale wu ma nag waa banu hashim léegi nit ñi ñëpp nag mabbu di jaayante ak sidna abubakar siddiq radiyallahu anhu njëkkalante gi sax dem na ba egg ci fi Saad ibn Muaaz suunu nga xam ne dafa feebar nit ñi di ko jéggi ak di joggi ci malaan mi ba am ku ne ittaqu saadan laa tata uu moytu leen Saad bu leen ko joggi fa xaala Omar Omar ne uqtuluuhu qatalahullah rey leen ko magum joggi yàlla na ko yàlla rey nee sidna omar taxaw tiim saadu mu maas sim tëdd taxaw tiim boppam bi ne ko laqad amamtu an ata aka atta aduwaka sama xel nekku ci lu dul ma bajant ci sa kaw ba sa yax yi dammatoo waaye ba ma waxee loola saadu nu maas xaysum nu saadu daa jóg te moo di doomi saadu nu maas daa di ne nit ki ci sikkim bi sidina Omar bi ne ko wallahi law asasta min u sha'ra maa raja'ta wa fii fiiki wa fii fiika waadiha mu ne ko wallahi ab kawar boo ko laaleeg sama yaram mu bàyyi boo ñibbi doo yóbbaale ab bëñ danaa la dóor ba nga doon ak mamañ bëñ doo ko yóbbaale seen kër loolu la ko doomi Saadu wax te mooy Xays ibnu Saad abubakar daal ne omar ndànk ndànk ma lan yaa omar arifq a una ablax ndànk omar ndax ndànk ndànk jàpp golo ci ñaaykat fii naxante fii tax a jàll waaye xëccoo duñu may dara faara da anu omar omar daal di woon ginnaaw xays ibnu saadin waaye xays ibnu saadin moom ba mu ne likk ca sikki moom omar ne ko jàkk da ko ne kawar boo ko ci sama bay dinaa ma dinaa màbb say bëñ doo yóbbaale benn bëñ boo dee ñibbi loolu boo ko xoolee da ngay xam ne booba dem ci politique ndax arif a una ablax loolu siyaasa la <laughs> ba loola amee saadun daal di ne ko daal di wax Omar ne ko amma wallahi law anna bi ma أقوى على نؤودي لسمعت مني في أختار آوسكك آسائرا يجئرك وأصحابك سعد ما سالنا عمر ولا إذا ما wérul aw ma takkaat nag mën a jóg waaye su ma mënul a jóg ba jàkkaarloog yow kon gox yi dëkk bi yëpp ak yoon yi ak ja ak sël yi danañ dégg sama kàddu kon dinaa la wax loo xam ne mbaa ma def la loo xam ne da nga dellu foo xam ne boo demee kenn doo doo fa ilif kenn dañ lay ilif mooy naa la delloo makka wallahi isan la alxaqannaka bi qawmin kunte fi imtaabi an la xayra boo kon dinaa lay delloo dëkk boo xam ne boo fa demee al toppe nga fay doon waaye kenn du la topp imilo nii min asar makaan daane doomam yi jóge leen ma fii fa amalo wat xolu fi daari ini daal di ko jël dugal ko këram loolu ma dalee di nekk lii ba may wax ba léegi ku ko soxla nan ko téye na nga ko seete ci taarixu tabari yi xaajab ñetteel xëtam ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom wala nga dem ca xëtam ñaa ñeent eh, ah, xëtam ñeenti téeméer ak juróom fukk ak mbaa nga dem ca xëtam ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent boo demee dinga nga ko fekk mool bi ñu moole Europe xaaj bu njëkk ba itam soo fa demee xëtam junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñett diñ fa fekk kon imam tabari moo nett li may wax nii ku ci am gis-gis nga dem gis ko tabari waaye man dama nett li abu al jawhari itam nettali na xam nga man damay tudd turu ku bind téere door a wax damay tudd turu ku bind téere ma door a wax kon doon na yomb lool ci kuy critiquer nga xam ci nga xam ki ngay critiquer kan la Aboubacar Al-Jawhari nee na loolu laa wax xam nga Aboubacar aljaw jawhari nee na moom mënoo ma cee critiquer ci dara xanaa lenn lu tax ma jàng ko noppi yow nga jàng ko di ko nettali nit ñi dañoo war a noppi ñi jàngul ñu xam dara loolu moo yàq dina ju njëkk ji diine ji fi njëkkoon ñi xam nëbbu lenn ci ñi xamul loola moo leen indi indil musiba ndax buñ xasee jàngal suñu bopp di nëbb ay xew-xew yu xewoon bañ koo wax danañ mujj nag di nëbb laaye alxuraan yi ci foofu la mujj waxuma addis yi waaye dañuy dem ba mujj ñu nëbb laaye yi loolu lañuy ñuy xasee diine yu njëkk yi tamit ci suñ biir xew-xew bu xew ci diine te itam mu yitteel diine ja nga ne nam xewee ba kenn waxee noona abu bakrin aljawari moo nettali lu jawari wax nee na ana omar kana yawma sin yani yawma buya abu bakrin mutajisan yu arwilu bayna yaday abi bakrin wa yaqulu ala inna annasa qad baya'u aba bakrin ala inna annasa qad baya'u aba bakrin maanaam moo doon publicité saqifatu bani saida di dukkat ci kanam omar ci kanam aboubacar naan ma ne ñëpp bàyyi ñëpp jaayante nañu ak Aboubacar ñëpp jaayante nañu ak Aboubacar di ko di di di ko publicité di ko siiwal ginnaaw ba ñu jógee ci saqifatu bani saa'ida loola ci kitaabu saqifa nga koy gis wala taarix ibnu abil hadid da nga ko fa gis ñu jaayanteeg Abubakrin jiital ko Omar na ci ginnaawam naa ci kanamam di publicité wax naa yëg leen jaayante nañu ak Abubakar yëg leen ne jaayante nañu ak Abubakar Abubakar mooy xilaafam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu tàmbalee di man ataakum wa amrukum waa'idun wa arada an yufarriqa baynakum faqtuluhu tàmbalee créé nag addis yi addis yi marketing yooyu nga xam ne boo ko gisee sax te jàng dëgg di nga xam ne lii ay addisu marketing la waaye Muhammad daawul waxee noonu ndax la la xamal ne hadisu marketing la dañ caa teg kaa inan man kaana léegi nag ba loola amee ñu dugg ca jàkka ja abbas ak aliyu dégg ay kabar ca biir jàkka ja te ñoom booba sang ga sang sang yonent bi pareegul yonent bi génn na àddina ñu ngi koy sang ñoom ay bokkam paree guñu jàmbur dem nañ feneen xëccoo fa ba nar faa fal nañ fa kenn dem ca jàkka ja di annoncé ne ñëw leen yeneen bi génn na àddina diw moo ko wutu ñëpp ànd nañ ci ko ci àddoo ci dagg sa bopp ba loola amee sidna ali dane waaw lii lu mu doon ma haza abbas ne ko ma ra'iya misla haza qattu ama qultu laka abbas ne ko kenn mësta gis lu mel nii daal di koy xool ne ko ndax waxuma la ko woon mooy ba mu koy wax naan nañ dem ci yonent bi mu wax lu leer féeg ñetti fan di nga doon jaam ab yet danañ la def loolu la neexul a bañ mbaa dañ la wiir ay yet moo tax abbas ne ko amma xultu la ko ndax waxuma ko woon waxuma la ko woon ca alxames ja ne mbir mi bu leerul danañ ko jël ci say loxo te yaa ko war a yor te su boobaa jaam ak yet ngay doon ba ma waxee loolu it nag waxoon naa fañ ko nettalee ci tabar ci taarix tabar yi ku koy critiquante nga dem foofa di leen ma déglu bu baax li may wax su ma leen di delloo ngeen di ko bind ku ci bëgg lu leer nga dellu ca fa ma wax nga seeti ko fa boo noppee nag te ngay weddi nga weddi ko ko wax te man nga bay ma ndax man nettali ma damaa nettali mi waxuma dara abbas na ko ha ndax waxuma la ko woon newoon naa la booy yonent bi waxul ci sa mbir lu leer feeg ñetti fan jaamab yet ngay doon def lay digal ngay dem mbaa ñu wéer la ay yet egsi na nag tey xam nga Abbas bàyyi bu ndaw bi mën na ko wax bàyyi bu ndaw la it ci àll yi mën na koo wax loolu ba loomee ba amee nag ku ñuy wax Barra ibnu Asib moo ñëw fëgg bunt bi Banu Hashim gépp ñu ngi ci biir kër yonent bi di ko waajal guñ ko ba noppi mu daal di fëgg bunt bi gaa yi ubbi mu fëggaat bunt bi gaa yi ubbi mu ne yaa machara bani aachim buuy a abubakrin yéen waa banu aachim nit ñi fal nañ abubakar ña ngay sang muhammad bi pare guñu nga dégg rek ci biir banu aachim ñuy wax naan maa kaana al muslimuuna yahdisuuna hadasan naxibu an uwa na anu awlaa bi muhammadin déedéet loolu kay munta nekk jullit ñi dem daje feneen di dogal ak dindi ci lislaam lu ñu fekkewul ñun banu Haasim te ñoo di mbokkam Muhammad ñoo ko ñoo ko ñu a gëm loolu kay mënut a nekk Abbas ne leen def nañ ko de giñ naa ko ci borom kaaba gi fa aluha wa rabbil kaaba def nañ ko de giñ naa ci borom kaaba gi ne gaa yi daje nañ feneen fal nit te nun yëguñu ko mu ne wa kaana amatul muhajirin wa jullul ansar laa yashukkuuna anna aliyan huwa bul amr baada rasulillah te nee na mboolem ñi gàddaay woon màkka ñëw madina ak li ëpp ci lan yi ñoom dañoo d'accord ci bu yàgg ne ali mii ni ko yonent bi di waxee moo koy wutu si fi jógee loolu ma ngi ca téere taarix bu ñuy wax al muwafaqiyaat li Zubayr ibn Bakkar page cinq cent quatre-vingt sooy critiquer nga dem seeti ko foofa noona mu aajiriina yëpp ak li ëpp ci ansaar dañoo jàppoon ne ali way wutu muhammad loolu almuwafaqiyaat moom téere bu ko bind noonu la tudd Zubayr ibnu Bakkaar moo bind téere bi mi ngi nekk ci page cinq cent quatre-vingt kuy weddi nga dem seeti ko foofa waaye man ñu bàyyi ma bu ma kenn weddi ndax damaa nettali wa kaana al-muhaajiruuna wal ansaar laa yashukkuuna fi aliyyin nee na muhaajiriin yi ak ansaar yi moom amuñu woon sikki sàkk ci ne Ali way toog gannaaw yonent bi Tabari nettali na nee na bani aslam ba nga xamee ne Omar wax na loola ne déglu leen dàmm la yonent bi jóge na fii jullit ñi fal nañu Aboubacar mooy seen xalifa mu di ko mu di ko annoncé nag ci penc mi banu aslam bañ ko déggee te ñoom ñu bari lañu dañoo daal di màbbe seen quartier rek feesal mbedd yi dell daal di ci kër yonent bi ci buntu kër ci ci penc mi yonent bi dëkk daal di ñëw fal Aboubacar te banu asim ci biir bi sang yonent bi génn gu banu aslam ba ñëwee dañoo daal di ñëw rek daal di jaayante ak aboubacar sidna omar ibnul xataab na ma huwa illa an raaytu aslam fa ay xantu bin nasri kon ab xëccoo la woon sidna omar ibnul xataab nee na ba ma gisee banu aslam rek laa daa di xam ne gañe naa fa ay xantu bin nasri ma daa di xam ne gañe naa loolu boo ko bëggee seet demal ci taarixu tabari xaaju ñaareel xëtam ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett te ñu moole ko orop bu fekkente ni moolu orop bi la na nga ko seet xaaju benneel xëtam junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak bu fekkente ni danga nga dem ci taarix ibnu asir moom nga am demal ca xaaju ñaareel xëtam ñaari téeméer ak ñaar fukk ak moom nag daf ne at aslamu fa baaya at Zubayr ibnu Bakkaar itam nettali na ko ci almuwafaqiyaan ci riwaayat nax ji euh, xaaj ñaari xaaj ñeenteel xëtam ñaar ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar moom la da caa teg ne fa xawiya bi im Abubakrin ba aslam dikkee topp Abubakar jaayanteeg moom ca la Abubakar wat ndax ca la ëpp mbooloo kon mbir ma du woon réunion wate la woon waaye nag nee nañu taarix li mu leeral mooy bisub talaata ba ca la ñëw daal di jaayanteeg Aboubacar Omar ne kon gañe nañu waaye altine ja moom booba maanaam seen taux taxut woon mu réyee noona ndax booba xëccoo baa ngi fi te mbooloo mi dañ doon xëccoo waaye ëppante wuñ lu bari bi Asan dikkee nag daal di jaayante ak Omar daal di tàccu ne gañe nañu de ndax ginnaaw Asan jaayante nañu ñun ñu leen ëpp amul ci dëkk bi kon ñoo fi ëpp mbooloo te kon Aboubacar mooy toog mu ne nag ba ñu jaayante ak ba noppi léegi dañoo daal def am mbooloo ñëw ca jumaa yonent bi Aboubacar yéeg ca min barab yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog nit ñi di ko jaayanteeg moom ca àllarba ja xaw ma ca talaata ja ba jant ba so loolu lépp ña nga fàtte yonent bi fañ ko tëral kenn julleegu ko kenn suulu ko ca loolu la ñu nekk ba ca guddi talaata ga ba ca àllarba ja maanaam ba ca guddi ca ngoonu talaata ga mu guddi àllarba ga ba ca xaaju guddi te bi kenn sulu ko loolu di ko fekk ci almuwafaqiyaat paas juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett di ko fekk ci arriyaadu nadira xaaju benneel paas téeméer ak ñeent fukk ak ñeent di ko fekk ci taarixul xamiis paas benneel maanaam xaaju benneel téeméer ak juróom-ñett fukk ngeen di déglu bu baax téere yi ma leen di delloo bi ku ci weddi nga dem weddi ji borom téere ba ndax moo bind man dama nettali mu daal di wax ne falamma buya abubakar bin fi saqifati wa kaana fil xadi jalasa abubakar ala min bari fa xaama omar fa takallama qabla abi bakar fa amidallah wa asna alayhi wa zakara ana qawluhu bil amsi lam yakun min kitabillahi wala adan min rasulihi walakinahu kana yara anna rasulallahi sayudabbiru amrahum wa yakunu axirahum nga gis nag ne li ñenn ñiy weddi ñu wax ne waree su ko weddi li ñenn ñiy weddi di wax ne sidina omar warut woon a taxaw di abubakar ca saxifatu bani saida soo ko waxee am na ñu koy weddi surtout njóobeen yi wax nañ dëgg nag ndax Sidna Omar mooy seen maam xam naa ne bis bu ma duggee ci taarixu njóobeen da ngeen xam lan moo tax Abdoulaye Diop di funkale ko bis bu nekk di xëccu Abdoulaye Diop islam taxul koy xëccu njóobeen dañoo bokk ci Sidna Omar moom ak ananiya ak onsiriya moom moom lay doxee man nag sama maam sax du naar man yéen yàlla nooyin mooy sama maam ñoom waaye askanu ma ci xeetu naar man ham ibnu moom la sama maam tudd moo tax ma mën na neutre seen diggante ndax défendre lu ma sama dret ngëm gi laay leeral diine ji moo ma tax a jóg waaye defuma ngir di woy sama maam defuma ngir di woy sama maam su ma santoon ka su ma jàngee jëm ci Aliou ñu ne sama mbokk la su ma santoon Diop su ma jàngee jëm ci Omar ñu ne sama mbokk la su ma santoon ka di feeñal sikki Omar njóobeen dañuy mer ndax Omar yi seen maam man yonent bi du sama maam Omar du sama maam man awma mbokkam naar géy laa sant ham ibnu loohin moo jur sama maam fa lañ daje man ak yéen moo tax mën naa nekk seen arbitre man naa leen a atte ci digg bi lay jaar ndax sama deret du ci tàng saa yu nekku ci diine ñu boole waaye fañ daje ci askan sori na histoire jàng ko baax na de ak baax baax lool léegi ba nga xamee ne Aboubacar jaayante nañu moom ca sa xifatu bani saayida ba ñëw ba ñu dajee ci jumaa ja Omar annoncé ba ñëpp ñëw te ba noo asin dar seen gémmiñ ne moo gaa yaa nga ci jumaa ja di fa la Boubacar rek conférence yi te ñun fi bi ñu ngi koy sang Omar dafa jóg woo Aboubacar yéegloo ko ci minbar bi ndaxam Aboubacar di diital na ba tay mu yéegloo ko ci bar bi Aboubacar yéeg toog Omar jël parole sant yàlla julli ci yonent bi xam nga lu mu njëkk wax la doon wax démb nekkul ci téere bi yàlla yonent yàlla moom ma diglewu ko loolu da wax wa zakara anna qawlahu bil amsi lam yakun min kitaabillahi wala aadan min rasulihi mbooloo bi maa ngi leen xamal ne la doon wax démb gisewuma ko ci téere bi yàlla bi yonent bi santuñu ko maa ko def ci sama xelum bopp waaye li ma gis rek damaa yaakaaroon ne yonent bi day dund ba ñu ci yoon bu ne xoj ci door fee jóge walakinahu kaana yara ana rasulallahi sa yudabbiru amra um wa yakunu axira um kon taraktukum ala ma'ajjatin bayda layluha ka nahaariha laa yaziigu anhaa illaa haalik waxi Omar jooju weddi na ko ndax bu fekkoon loolu yonent bi ko wax kon Omar du wax ne damaa yaakaaroon ne yeneen bi bala fee jógee day day day toftale suñuy mbir ba mu may dogg ba xam ni ñuy demee ba ba xam ni ñu war a doxalee muy door a dem ah waaw sidna Omar yow nga ne li nga wax jëlewoo ko ci alxuraan jëlewoo ko ci kàddu yeneen bi sa waxi bopp la dangaa yaakaaroon ne Muhammad balaa génn àddina da leen di organiser ba jiital ki war a jiitu def sa ca war a topp te ba mu yoree ba mu ne indi leen xalima ak dundookaay ma bindal leen nga taxaw ne ko doo bind soo ko boo mu bind est du lii ngay wax tey la naroon a bind est lii Omar di wax naan lii ma waxoon démb samay xalaat la sukkandikuwuma ko ci alxuraan sukkandikuwuma ko ci waxi Muhammad damaa yaakaaroon ne Muhammad balaa génn àddina danañu tëralal lépp door fee jógee lu tax ba mu ne indi leen bindookaay ak àll ba ma wax leen loo xam ne su ngeen ko bindee du ngeen tàqali ko yaa yaa yaa Omar nga ne déedéet il faut ñu gore tuuti gor deretam moo koy may ba du wax ak naafiq du watee taxas genn wet Omar moo wax loolu de moo ne nit ñi la ma waxoon démb bañ fal Abu Bakar jëlewu ma ko ca alquran jëlewu ma ko ci hadis sama xalaati bopp la waaye damaa yaakaaroon ne yenent bi balaa génn àddina dana dana toftale suñuy mbir door fee jógee waaye génn na àddina te toftalewul suñuy mbir ma ne Omar lu tax ba yenent bi ne indi leen xalima ak alu ba ma wax leen nga ne ko doo bind xëy na soo ko bawoon su bindee dana toftale seeni mbir kon bu ñàkk toftale amee Omar mi reconnaître ne li ma wax teguma ko ci lu dul xalaat te ba mu Omar bëggee bind lu keroog ca alxames ja moo ko tere wax dëgg yàlla daal àtte leen man génn naa ci ndax Cheikh Diop moom sëtëb Sidna Omar la te bu ma jàppee ma de te mooy sama sëriñ moom ma may wér bi kon dinaa bàyyi affaire bi mu yem foofu noonu laa qad bi i uda rasulihi nee na ko mu ne leen yàlla bàyyi na fi téere bi yàlla bi téere bi yàlla bi ci leen jubag yonent bi nekk si ngeen jàppee ci kitaabullaahi yàlla dina leen jubal waaye nag yàlla boole na seenu mbir ci ki gën ci yéen wa inna laa xad jamaa amrakum ala xayrikum boole na seen mbir ci ki nga xam ne moo gën ci yéen mooy aboubacar saahibu rasulillah saani isnayni is uma fil gaar xam nga loolu aw lay la aw lay la nee na ngëneel gi tax Aboubacar toog ba yonent ba gàddaaye dem ma Madina nekk ca xaar ba moom ak moom ñoo fa nekkoon waaye dafa fàtte na ba mu fay nekk moo yonent bi ca biir xaar ba Ali ibn Abi Talib moom moo tëddoon ca kaw lalab yonent bi sàngoo malaan ma bu dee dalaa il la ñuy seet ci ku war a toog ki ngay dem na ko tëddal ci sama kaw lal sa sàngoo saa malaan ànd ak nit di dem ñi ne moom nit a àndoon di dem kon kooka moo ko war a wutu ki ki la doy ci sa biiru njaboot ba nga sàngu ko masaan ci sa koob lal boo jógee palaasam ndax doyu fa mbir mi du xel bu dee xel xëccoo rek dañoo war na bàyyi nit bi mu wax bind ñu xam lam bëggoon a bind man ci loolu laa ànd nee na nit ñi daan def ak lox Omar ne ñëw leen ngeen yeesal jaayante gi yéen ñi yëguloon ngeen jaayante waaye ñun jaayante nañu ak Omar démb mag Saad ibn Abi Waqaas ak Lansaar Buxaari mi gën a wér téere nee na wa kaana taifatun minhum xad baayawu qabla dalika fi saqifati bani saaida wa kaana albayatu abu bakrin al aama ala alminbar nee na yi nee na jaayante googu ñu siiwal nag te def ko ci jumaa ja fekk na ñi def jaayanteeg nguumat ga nga xam ne ñu ngi ko defee ci saqifatu saqifatu bani sayda ah, mooy wax de Abubakar euh, Buxaari waxuma de Abubakar euh, maanaam Buxaari mooy wax li tax may leeral na Buxaari mooy wax damaa bañ euh, sama sëriñ tëcc ma Buxaari moo ne avant ñuy jaayante ak Aboubacar ca jumaa ja ñëpp yëg ko ba mooy Banu Hashim fekk na ñoom ñu nëbbatu jaayante ak moom ca saqifatu Bani Saa'ida te ca ñooñu kenn yëgu ko Anas ibnu Malik nee na sami'tu Omar yaqulu li Abi Bakrin yawma isin is'ad is'ad il minbara is'ad is'ad il minbara falam yasal bi atta saidal min bara fa bàyyi unaas amma bi ñu dikkee sax ba ci jàkka ji aboubacar da doon tendeefal nanguwul woon a yéeg ci kaw min bar bi anas ibnu malik nee na omar a nekk ci wetam rek waaye jëgal toog waaye jëgal taxaw ci toog yëgal toog ci kaw ñu ñu ñu yow yëgal yaa war a yow mi yaa war a yéeg yow lañ jaayanteeloon démb toogal ci kaw ñu jaayante ak ah, anas ibnu malik moo ko wax te bu ma eggalee dinaa wax fa ngeen koy fekk wax ji ma wax ni fa ngeen koy fekk ah mu cokkasti ko coomaay tubaab yëgal yow lañ fal yaa fi wut yonent bi yëgal yaa àndoon ak moom ci xaaru ba dégg nga ba Boubacar yéeg ba Boubacar yéegee nag dafa wax ak nit ñi ne leen ayu annaas fa inni qad wallitu alaykum wa lastu bi xayrikum fa in ahsantu fa aynuni wa in asatu fa qawimuni ba egg ci ne ati uni ma ataatullah wa rasuluhu fiikum wa in asaytullah wa rasuluhu fala taatuli aleykum xuumu ila salatikum yaramukumullah xutba ba gudd na lool waaye ma nga tàmbalee ci fal ngeen ma waaye gënuma leen su ma jubalee jàppale leen ma su ma dëngee jubbanti leen ma topp leen ma fekk maa ngi yàlla ak ñoom ñaar bu leen ma toppati jóg leen nu julli yal na yàlla yërëm leen loolu ma dale ko ca ba ma déparé ba léegi mi ngi nekk ci siiratu ibnu isham xaajub ñeenteel xëtëb ñetti téeméer ñeent fukk boo fa demee dinga ko fa fekk boo demee ci taarix tabari yi xaajub ñetteel xëtëb ñaari téeméer ak di ko fa boo demee ci uyunul axbaar libnu xutaybata xaajub ñaareel xëtëm ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent di nga ko fa fekk soo demee ci riyaadu nadira xaaju benneel xëtëm téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar di ko fa fekk boo demee ci taarix ibnu kasir xaaju juróomeel xëtëm ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett da nga ko fa fekk boo demee ci suyuuti ci taarixul xulafa taarixul xulafa li jalal di abdurahman suyuuti soo fa demee moom benn téere la mu ngi man xaaju juróom ñeent fukk maanaam pa ak juróom-ñaar da ko fa fekk soo demee ci kansul ummaal xaajub ñetteel xatum téeméer ak ñaar fukk juróom-ñeent di nga ko fa fekk taarixul xal siiratul xalbiya boo ca demee xaajub ñetteel xëtum ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar di ko fa fekk buxaari yi nettali ko ci sayil buxaari yi eh, xëtum téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci xaajub ñeenteel ci kitaabul bay a jële ko ci anas ibnu malik lii ma doon nettali lépp ñii ma wax ñépp ñoo ko nettali ci seeni téere li tax nag tëb weddi tëb weddi baaxut nit ki su indee dalil wax téere wax am xët wax fan koy fekk wax tab obaak dem ak at mañ ko tab o ak réew mañ ko móolee dangay dem seeti ko ba noppi nga door ko weddi su dul loolu nga jàpp ci sag sag ñaambur te xam ne sa gëstu eggagul fa waaja egg ci gëstoom léegi nag ñu dem ginnaaw bi ñu jaayanteeg Aboubacar ba noppi lii may wax tabaxaatu ibnu saadin moo ko nettali tabaxaatu ibnu saadin nee na tawafa rasulullah yawmul isnayni ina saaxati shamsu fa soxala naasu an dafni i soxala naasu an rasulillahi baqiyati yawmul isnayni hatta asiru sulasa'i awalan bi xutabi saqifa summa bi bayati abi bakrin al ula summa bi bayati am bi bayati al amma wa xutbatihi wa xutbati omar hatta wasala bihim hatta salla bihim maanaam boo demee ci tabaxaatu ibnu saadin xaajub ñaareel di nga ko fa fekk ci matbaatu Laydan ibnu Sadin nee na yonent bi faatu na altine bajant ba nekkee ci diggu bopp nit ñi nekk ci yeneeni mbir suuli ko mbir ya ñu nekkoon ba tax suuli ko nag dañoo njëkk a nekk ci eh, xëccoo booba la ko dale altine talaata ba ca takkusaani talaata ja ne ba altine jant so guddi ba bët set ñu yendu talaata ja ba ca takkusaan loolu lépp yonent baa ngi tëdd di ab niiw de sang nañ ko sang nañ ko waaye kenn jileewu ko suuleeguñu ko xëy na ndar képp ga leen doon ga leen banoo asim doon xaare mooy bu ñu ñëwee ca jullee ga ndax foofa itam banu Hachim mënoon na faa am atu bu fekkonte ni dañoo ñëw ñu ne jullee ñu ne ki gën a jegeñ mooy jullee Asan ak Useynu ñooy gën a jegeñ te kon si Aliou seen bàyyi jiite ba ba te Aliou bu jiite woon julli yonent bi kon xilaaf ak Aboubacar gi dina yàqu moo tax diggante altine ba talaata ca tàkkusaan ci lijjanti la ñu nekk ba Abubakar falu ba jiite tàkkusaan ba noppi bañ xam ne mooy xalifa bi yenent bi ñu door a retourné nag dellu ca sulog yenent bi waaye ginnaaw Abubakar yi xalifa bi yenent bi xutba na jiite nit ñi julli farata ku jiite nit ñi julli farata lu la teree jiite nit ñi julli yenent bi lan moo la ko teree def ah nañ leen ko laaj nañ leen ko nañ leen ko laaj te buñ ma ko laaj waaye li leen téewoon daal ba ca tàkkusaani talaata moo di xëccoo ba woon ca banu saa'ida ak xutba yañ fa doon def ba ni ñu jaayanteeg Abou Bakar ba ni ñu ko indi ci jàkka ji ba ni mu jiite nit ñi ak julli te Omar xutba na jiitoo ko ba mu nappee mu xutba jiite nit ñi ba ñu saxal ne léegi nag Aboubacar xalifa jiitu na mooy xalifa bi yonent bi xutba na déglu ngeen ko jaayantee ngeen ak moom jiite na leen ak julli léegi nag mbir mi c'est terminé léegi nañ leen dem nag suli Muhammad sallallahu alayhi wasallam demal sirat ibn Hishaam xaaju ñeent xaaju ñeenteel xëtëb ñetti téeméer ak ñeent fukk ñett mbaa nga dem tabari xaaju ñaareel ñeent fukk ak juróom ñeenti téeméer ak juróom fukk maa nga dem xaaju ñaareel téeméer ak ñaar fukk ak ñeent wala nga juróom ñett wala nga dem taarixul xalbiya xaaju ñetteel paas ñetti téeméer ak juróom ñeent paas ñetti téeméer ak ñeent lii lépp boo fa demee da fa fekk lii may wax muy lan falama buuy a abu bakrin aqbala naasu nag léegi ala ji aati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yowma sulasa na ibnu isham nee na ak tabari ak ñiimalim ba ñu xëccoo yi nag ba kay falu-falu booba leen door a jublu nag ci waajale nent bi ca talaata ja gannaaw tàkkusaan ba ñu ko waajale gannaaw tàkkusaan ba yeggal nit ñi dugg nag di jullee waaw ma ne yeneen bi am na xalifa mooy Aboubacar xutba na déglu nañ ko jiite na leen tàkkusaani talaata ja waaw ñu war a suul yenent bi mooy xalifa bu fekkente ni légimi légitimité am na la ko teree jiite julli yenent bi te mooy xalifatul muslimin defuñu ko waaw ba mu ko jiitewul lan moo tere ñu topp ci gannaaw banu Hachim ñuur seen ilimaan mu jiite yenent bi sallallahu alayhi defuñu ko xam nga luñ def sallu alal badri أفتاتا بلا أممي صلوا على البدر أفتاتا بلا أممي jullit mbooloo gi njëkk am ci àddina ñu di ko jullee ab niiw mbooloo ma bari ba noppi nuy julli par kenn tàkkusaani talaata ba xaaju guddik àllarba kenn ku ne ne damay jullee ba ca gone yaak jigéen ña te kenn du ko def génn nag jullee kenn jiite ko musta am ci lislaam lu bi mu Muhammad génnee àddina ñoom ñoo ko njëkk def keroog lañ ko mujj def ba faw lan moo tax bi Abubakar génnee àddina waxu ñu ni jullee mbooloo amul yërmande weddi waxi Muhammad la ndax ñoom dañoo wax ne dañ ko julli par kenn kenn pour yërmande ji gën a bëri te mu Muhammad dane yërmande mi ngi ci àndandoo waa xanaa Abubakar bi mu génnee àddina bëggul yërmande lan moo tax Muhammad ñu jillee ko par kenn kenn yéene ko yërmande ji toll noonu Aboubacar dëkk ñu jilli ko group lan moo tax Omar dikk ñu jilli ko group man su ma jàkkaarloo woon ak saaba yi la jeu dans le jeu dama leen koy laaj ndax am naa plein droit ci li ma xamut ma laaj ko ba ñu waxal ma ko te képp ku fi taxawal ku leen fi taxawal na ma wax lan moo tax ba yonent bi duggee jamono ku dee ñu jullee la mbooloo ba moom mu génn jamono ñu jullee ko par kenn kenn ne moo ëpp yërmande ba noppi keneen ko ca topp soo dee ee ñu dellu ca cosaan la jullee la mbooloo lan moo tax ñu jagale Muhammad julli par kenn kenn loolu moom su ma jàkkaarloo na saaba yi moom danaa leen ko laaj te d'accord ma ci laa wax de te du ma ci d'accord fekk dajewuma ak ñoom ba ñu wax ma ban dalil lañ am ci ne jiite niiw par kenn kenn ku nekk jullil sa bopp individuellement moo ëpp yërmande moom lañ defal mu amat te defaluñ ko Aboubacar loolu moom bu ma jàkkaarloo nag ñoom même yomal xiyaam dama ko dul tal waaye kon dinaa leen ko laaj. su ma daxala naa su nag nit ñi dugg yu salluuna alayhi ñi di ko julli par kenn par kenn par kenn par kenn par kenn loola ma ca taarix ibnu Isaam xaaju ñeenteel ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ak ñett xëtwa mu ne wasulliya ala rasulillahi bi xeyri imam bi xeyri imam lan moo tax bi xeyri imam mun ta am imam ndax xalifa bi amul droit jiite ak jiite ko jiite jiite mu amat te Aliou nekk fi te ba Aliou jiite bu sëlmalee ne fab leen suuli mooy nekk xalifa foofu politique kese kese il faut nous dire la vérité loolu moom samay wax ku may critiquer nag ma critiquer ci loolu politique kese la loolu nag maa ko wax amuñu wenn lay ci ne nañ jullee Muhammad kenn par kenn ndax moo ëpp yërmande téenante bi ne aljamaatu rahmatun wal furqatu alakun wa asab moom dañuy mën a weddi addis bi saxal jullee yenent bi par kenn mbaa ñu saxal addis bi toppal seeni xelaat ndax da sunna saaba aleykum bi sunnati wa sunnatil xulafaa rachidin la wax waaye dana aleykum bi sunnati mu amat mooy bu nit deewee ñu julli ko mbooloo waaw léegi loolu ah, lan moo tax ñu bàyyi sunnat muhammad def sunnat saaba soo xam ne waroon ak sunnat muhammad wala boo gis ngeen benn addis buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam naa waroog moom waaw Omar ma daan waroog moom te ba muy dund man naa waroog moom bu génnee àddina man na ne mu Muhammad noon na nañ ko jullee par mboo nañ jullee jullit par mbooloo ndax moo ëpp yërmande lu mbooloo mi bari moo gën waaye moom nag ñu def ko benn benn moo yërmandeem ginaaw amoon na droit ci di di xëccoog Muhammad bañ naan al aquma omarin ginnaaw Muhammad a ngi dund ñu naan al aquma omarin kay bu Muhammad faatee tamit al aquma omarin xaw ma ku ne nañ ko jullee par kenn kenn waaye ka daan waroog Muhammad te ba muy dund ba ba ma koy gis du ma ko ci wóolu loolu moom samay ku may critiquer nag ma critiquer ci loolu ñi di ko jullee kenn par kenn di ko jullee kenn par kenn dégg nga ba góor ña jeex jigéen ña guddi gay bëgg a jeex di guddi àllarba ga léegi nag ñi dem ca suul ga suul gi moom duñ ko mën a suul af saasan ndax dañoo bari te duñ ko mën a suul jamaa atan naqaduñu ci bàmmeel bi te am na ñu gën a yell ci suul ko gis nga ñu yëkkati jëmm ja dugal ko ca pax ma suul ko ñoo amoon droit tànn njiit lu jiite niiw ba te ku jiite woon mu amat na nga jiite jullit ñi politique yàgg na fi ñi dem nag ci suul gi waliya wat a rasulillahi fi xabri i awlaa i rata alladina xasaloo abbas wa ali walfadl wa sali u mawla u wa xalla ashaaba rasulillahi bayna rasulillahi wa alihi fa wallu ijlaanahu maanaam ba ñuy suul yonente bi saa sallam ñii ñoo taxaw ci suul ko ñoo ñu ko doon loolu benn nettali la ibnu saadin moo ko wax ci tabaxaat ba waaye ba léegi ba ñuy dugg ci biir bàmmeel ba wa daxalal xabra aliyin wal fadlu wa xusum ibna abbas bañ demee nag bay dugal jëmm ja aliyu ak fadlu ak xusum ñuy ñaari doomi abbas ñoom ñoo dugg abbas bàyyi la ci yenent bi bàyyam bu ndaw la ñaari doomam ak aliyu ñoo dugg aliyu mooy taawab kër gi moo yore drapeau bi moo yëkkati muhammad moom ak xusum ak ak ak fadlu ñu dugal ko ci biir bàmmeel bi ka leen doon jàppale ca suul ga mi ngi tudd suquraan te suquraan moomu ci mawla rasulullah yi la bokkoon am nañu wax it ne usaamat ibnu seydin bokk na ca ca ba ñuy sang aka sang usaamat ibnu seydin bokkoon na ca loolu aqdul farid fa nga koy fekk téere taarix la gis u trois ca ca ca ca passe quarante un boo demee ci taarix sa abi tamit di ko fekk ca xaaj bi njëkk ba xëtum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn xëtum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñaar yoon boo demee ci Kanzul Ummaal itam di nga ko fa fekk ñooñu ñoo taxawee yonent bi suul ko ca biir ne soxnaam mu des nag coow loo xam ne su ma ko waxee ñépp danañ tëb ne déedéet Abu Bakrin ak Omar fekkewuñ bi ñuy suul yeneen bi ñoom ñaar maa ngi dévier nag àddina gépp waxuma waa Sénégal ku ci jàng ci histoire ne bi ñuy denc yeneen bi Abu Bakar ak Omar ña nga fa wax ma fi nga ko jàng ak téere ba ma dem jëndi téere boobu jàngi ko inna aba bakrin wa omar lam yashada dafna nabi yi ba ñu jullee seen julleeg bopp dañoo ñibbi ndax dëkk ba rëy na te ci kilifa ya war a njëkk a lañ bokk tabar benn benn lañ koy jullee te góor ña dañoo jullee ba jeex jigéen ña jullee mag ña ndaw ña di door a jullee mu nekk ci digg xaaju guddi guddi àllarba ga booba gaa yi ñu ngi ko seen kër di nelaw ba ñuy suul Muhammad Aboubacar ak Omar fekkewuñu ko loolu ci taarix bu ñuy wax kansul ommaal fa la nekk téeméer ak ñeent fukk wax naa leen fa mu nekk ku ci ne fekkee nañ ko nag nag ma wax fi nga ko jàng fi mu nekk Aïcha nag moom waxuma fekke suul ga waaye déglul bu baax daf ne ma alim naa bi rafli rasulillahi ata sabina asatul masaayi fii min jëw fi lay lay taar baa ñun daal yéene ga yéene sa nent bi noppi nañ ci moom denc nañu ko ca guddi àllarba ga ca biir guddi ga bañ ko yéene ca biir guddi ga booba leen xam ne denc nañ ko kon Aysatu ba ñuy denc fekkewu ko bàyyam fekkewu ko Omar fekkewu ko Absa fekkewu ko walam yali i ila aqaribuhu wa laqad samitu wa laqad samiat banu ganamin shari sharif almasai ina adara wa ina hadara um fii buyuti im bani nañu yéen a nga lañ dégg ci seeni kër dégg na yéen ba suul nañu ko kañ lañ ko yëg ca guddi ca mujj guddi ga ca àllarba ja kon ca ay trois heures et demi quatre heures lañ ko yëg loolu moom lañ leen di indil tey jox nañ leen nettali yi wax leen dalil yi wax leen téere yiñ ko jóge wax leen xaaj ya wax leen xët ya bu ma ci kenn dóoram xët seeti leen fa ma ko jële bu ngeen di gëm ngeen gëmal ñooña bu ngeen di weddi ngeen weddi leen suba foofu la ñuy dalewaat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu